Mor gay bu may ñëw itam ma ngi ànd ak général Diène ak Sémou Thioune ñu fekk fi ki nga xamante ne bii waju la ci ñépp di Serigne Maguette Diakhaté di nuyu mboolem kilifa yëpp di ci ràññee seriñ Mamour mi nekk sama ginnaaw di ko jox nuyoo bi ngir mu jàllale ko ñi nga xam ne xëy na waroon naa leen tudd te te ràññewuma leen. di am mbégte rek teew fii ci seen biir ndax dangeen liggéey liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la moo tax li ñuy jiital mooy di jaajëfal bureau bi nga xam ne moo fi nekkoon te sunu mbokk di sunu xarit soxna maam xarit jiite woon ko ci seen taxawaay bu rafet ak seen liggéey bu am solo boo xam ne liggéey nañ ko ci wàllu gerte gi fii ci biir dëkk bi di ndokkal tam nag bureau bi nga xam ne mooy bureau bu bees bi di fedd rek xëy na yaakaar yi nga xam ne ñëpp am nañ ko ci yéen di leen euh, ñaanal yàlla ba yaakaar yooyu bañ a tas ci benn côté te lépp loo xam ne yéene ngeen ko mbooloo mi yéene ko organisation bi yéene ko réew mi sunu boroom kat na leen ba ngeen def ko ni nga xamante ne bii noonu ngeen ko noonu ngeen ko bëggee. di rafetlu itam liggéeyu Rasiaat ndax. fii ci dëkk bi foo naa kenn ku ne xam na gerte ni nga xam ne noonu la demee ak fii nga xam ne mooy Touba yaakaar naa ne non seulement ñi dàq bay ci réew mi ñi ci ëpp mën naa wax ne fii la ñu bàyyi ko waaye sax seen taxawaay tax na ba mel na ne fépp foo xam ne gerte ñor na fa ci réew mi rek lu ci ëpp dañ koy gàddu indi ko defare defare ko Touba kon liggéey bu am importance ngeen def ci dëkk bi ne ngeen ma ngeen ba mat ba membres yoo xamante ne bii ñu ngi liggéey ci yéen ngeen leen jox am xëy. loolu bokkut ak yeneen yi nga xamante ne bii xaj na ngi ko doon waxtaane nga xam day nga ngi directement ci wàllu gerte fii ci dëkk bi lu peut-être 30 à 35 000 personnes loolu nag ndax ci waxtu woo xam ne ñu ngi wax wàllu euh, création d'emploi kon am ngeen apport bu rëy rëy boo xam ne te ne bi yéen a ko indi ci ci koom réew mi yàlla itam dogal ngeen doon jëflante ak euh, monsieur le président de la république mu jàppale woon leen ci loo xam ne amul benn nattam la wax nga ko léegi ci sa discours boole leen ak euh, Sonacos ngeen di liggéey loolu aussi nekkoon loo xam ne lu am solo la te mu nekkoon mbir moo xam ne mbir mu ko yitteel la ndax yu bari ndax euh, li nga xam ne moo di agriculture naa ci wax sax léegi dafa am importance boo xam ne am na ko ci politique bi nga xamante ne bii mi ngi koy mi koy def waaye xëyum ndaw ñi xëyum jigéen ñi ak xëy mi ci biir réew mi dafa gis ne am na contribution boo xam ne mën ngeen ko ci indi ndax boo demee ki dëkk boo xam ne xañ na bariwul ay ay industrie yéen ngeen créer de petites

ba mu am ay jafe-jafe ay nit ñëw ci réew mi di jënd gerte gi ba yen ngeen am difficulté jënd gerte mais aussi wax nga ko léegi moom tëj nañ frontières yi lu mat deux mois deux yoo xamante ne bii xëy na ci booba sax Sonacos li mu amagu si néew ci diggante booba ca la ko ca la ko amoon. donc moo tax même xaw na waa jaaxal sax lan moo tax deux mois yooyu wu leen ci pour pour kam jënd gerte mais nekkul loo xam ne lu lu simple la bi wax naa leen ko. parce que day mel ne dangay ngay méngale 35 000 emplois yi nga xamante ni moom laa tudd léegi ak li nga xamante ne bii mooy un million d' agriculteurs bi nga xamante ni ñu ngi ci bi aussi di bay ñooñu aussi ñu war a sàmm seen i intérêt état kon li def moo di arbitrer entre li nga xamante ne bii ñoom ñooy liggéey ci wàllu industrie di ci jokk valeur ajoutée di créer ay ay ay ay emploi di fay ay ay lempo ak ñi nga xam ne xëy na ñooy producteurs yi nga xam ne ñoom ñooy bay directement te itam bu njëkk ñu daal jënd gerte gi xañ na ay cent quatre-vingt-dix deux cent dix daaw ko sax mat ndax bu naan di jeexee rek dañ koy mbapat jaay ko ci cent soixante-quinze mu daal di jeex euh, kon loolu arbitrage boobu nag moo sababoon mu tëj frontières yi ngir permettre huileurs yi nga xam ne ñu ngi ci biir Sénégal ñu mën a approvisionné wu ba nga xamante ni employé yooyu danañ ko mën a euh, conserver mais ñi nga xam ne ñu ngi jóge bitim réew aussi di fi di fi dikk euh, loolu adduna si dafa dafa tëjeeku mënu su rek jekki-jekki ne génn leen wala amatu leen droit nekk fi loolu si nañ ci bàyyi xel te loolu ñun war na cee xam dara ndax ñaata nit ñoo dëkk Touba gi ñaata nit ñoo dëkk Sénégal nekk bitim réew di fa sutur di fa liggéey Chine googu donc bu ñu fa demee la fa nekk ci ay sénégali ak la fa nekk ci ay doomi Touba di fa liggéey kenn xamul nu mu toll kon kon équilibre boobu si nañ koy bàyyi xel ndax aussi àdduna si du kenn ku nekk da ngay dund yow rek loo neex def da ngaa seq ak ay réew di jëflante kenn ku nekk am respect boo xam ne danga ko danga ko jox sa moroom mais la ci am solo rek moo di kenn ku nekk day sàmm ay euh, day sàmm ay intérêt sàmm ay intérêt sàmm ay intérêt doomam kon ñoom bu ñu fi dikkee aussi andi fi xañ na comme mu bari dem ci àll bi di jëndi gerte lu néew néew trois cent vingt francs béykat yëpp jóg daal que ñii baax nañ ñun ànd ak ñoom loolu kon xam nga aussi dina am noo xam ne noonu la état bi mën a doxe ngir indi solution ci problème bi loolu nak li ci ëpp solo moy li ngeen wax léegi moy tok waxtan c'est ça la solution ndax ay pexé mom munta munta ñak ay pexé munta ñak donc mais foog na né tok waxtan bu bu continuer wala fekkon dakkon na aussi ñu ñu ñu ñu wéyal ko tàmbali ko na nga ni jëm ci campagne agricole ba waxtu muy dikk foo naa bala ñu ci ag mën ñu am solution yo xamné solution yu yu durable lay nekk yo xamante ne bi aussi yeen ci sen walu bop li ngeen wara am ci gerte de ngeen ko meuna am ba meuna conserver emploi yi ngeen am surtout na ambition bi nga xam aussi am ngeen ko mu formaliser secteur bi ndax loolu dafa am solo mais aussi mu dem même ba taxawal ben raffinerie bo xamante ne bi bu mag lay nekk donc depuis de 3 milliards foog mom nga lim donc loolu aussi foog naa ne day bokk li nga xam ne day day participer ci ci ci ci li ñuy woowee donc la relance euh, économique kon foog naa solution mënut a ñàkk am na piste de euh, de solution

moo xam également état bi day obligé ñi nga xam ne mi ngi leen subventionné di leen seen gerte yéen par force da ngeen koy jaay ñi nga xamante ne bii ñu ngi defaraat diw gi am nañ solution donc loolu ay pexe la yoo xamante ne bii euh, fu ci nekk rek état mën na fa euh, mën na fa en tout cas levier la boo xam ne mën na ko actionné ngir ñu am ci ngir ñu am ci pexe mais loolu nag toog waxtaan moo sabab loolu aussi euh, ni ngeen ko sàkkoo ak ñu itam luñ ci luñ ci man dinañu ko def ngir que concertation yi mën a am waxtaan yooyu mën a mën ndax li ngeen ci amul lepp aussi ci waxtan lu juddou won

nga xam ne lépp loo xamante ne bii mooy koom-koom ci wàllu réew mi moo koy doxal ci lañu ko tënk pàcc bi nga xam ne moom la ci euh, mbay mi am ëpp na mën na junniy milliards boo xam ne lépp dañ koy def ci wàllu dañ koy ci wàllu mbay mi kon loolu foog naa lu am solo la ñu gis itam mbay mi jamono yi ñu jamono yi nga xam ne ci lañu ci lañu toll résultat yi nga xam ne ñu ngi koy euh, ñu ngi koy am daaw am nañu lu mat un million Mbackaño hmm. ndeysaan séesi dafa xaw a kii tuuti yalla baax la donc daw ci gerté gi liñu am li nga xamné am nañ ko foog na production record la lo xamné ne nee nañu mën na un million huit cent million huit cent tonnes donc lolu moy li nga xamné mom moom lañ déclaré ne am nañ bu ñu demee ci ci production céréalière bi céréalière bi aussi la même chose tay Sénégal limu soxla ci lu muy dundé quatre-vingt-quinze pour cent yi tey jii ñu ngi koy bayee ci ci wàllu réew mi bu dee ci wàllu ceeb bi li ci am man na un million quatre cent mille tonnes kon ñu ngi def ay production record mais gerte gi ñu bay ko rek noonu jaay ko amul solo li am solo mooy lii nga xam ne yéen a ngi koy def mooy ñu bay ko waaye également ñu ñu ñu ñu ñu transformé ko ci biir réew mi yokk ci valeur ajoutée foog naa loolu mooy li nga xamante ne bii mooy li mooy li ëpp solo te yéen ci loolu ngeen nekk kon xam leen ne vous êtes des partenaires privilégié de l'État dans la création de valeur ajoutée, dans la création d'emplois, mais également donc dans l'émergence du Sénégal. donc c'est ce mooy li wér te loolu sikk wut amul benn ce sàkk kon continuer la discussion mu pour que nous ayons des solutions durables ba nga nous que bii kët baykat bi duñ ko xañ li nga ci su wante aussi yéen yi nga xamante ne bii aussi yéen nga am une contribution significative ci li nga xam moy développement réew mi yéen itam ñu permettre leen ngeen mën jënd gerté man ko transformer mën a conserver seen emploi mën également am lo xam ne di ko suturloo ak surtout aussi li nga xam ne yéen koy participer ci dëkk bi muy social bi nga xam ne yéen koy def ci sëriñ bi ci màggal yi ci ci kuréel yi nga xam nek na fi di dimbali ñëpp loolu aussi dafay loo xam ne lu lu rëy rëy la parce que solidarité boobu dafay mel ne moom moo téye réew mi ndax boo mënee benn yóbbaale sa morom bala nga yóbbaale mbooloo loolu dafay am solo kon loolu mënee su ko ñàkk aussi rafetlu bu baax a baax kon daal peut-être kàddu yi du gudd ñi ngi leen sant di leen gërëm di leen xamal ne lii ngeen di def lu baax la ñu ngi leen ci dolle ñaax ñu ngi leen di en tout cas ñu ngi euh, ñu ngi félicité ñi nga xam ne ñoom la ñu fal tey jii ngir ñu war a continuer ci jamono yi di ñew ngir di doxal li nga moy euh, moy gi di la xamal donc suñu ubbi suñu ubbi ko ci yeen amna pour qu'ensemble ñu mëna dox pour bien trouver des solutions ci li nga moy Que vous yi ngeen dund ñi ngi sant ñep di wa alaykum wa rahmatullahi taala wa euh ndax té biñu joxé invitation bi kéro dañ doon xelmat ban genre ban ban la ban association la lan lañu yëngatu waaye bi jokkaloog secretaire général am ay tegtal yu ñu jox ñu xam ne lu am solo la liggéey bu mucc ayib moo fi nekk moo tax ñu war cee fekk c'est presque sous-préfet moo waroon ñëw sax mais dafa am ci lu mu nekk waaye ñun bu liggéey amee rek dañuy dem amul samedi amul dimanche su waree am liggéey rek dañuy dem te lii euh, li ñuy dégg fii euh, dal na xel je crois que benn bi jàngat naa ci lu bëri bi ma jëkk secretaire général téléphone mu am lu ma ci junj tuuti ma ñëw dégg fii encore kon may rafetlu te def naa du ma dugg ci biir daanaka monsieur le si wax na lépp li ci ne ci biir en matière de politique d' ak yooyu ñoom seen di rafetlu rek di naan daal dinañu ànd ak yéen accompagner leen lépp loo xam ne administration war na cee taxaw au niveau territorial ba ñu ko dinañ ko def mais am na chance aussi am kilifa boo xam ne mën na jokkoo président nu mu ko neexee loolu tamit mooy direct mooy ligne direct ñun il faut jaar préfet jaar gouverneur remonté ba ministère loolu yëpp day am jafe-jafe. loolu tamit chance la aussi li ñu am donc di di rafetlu jotaay bi mu ne bugguma ci woon wax wax naa ko sax ñun bu ñu suñu kilifa ci ginnaaw rek la ñu bootu toog ak suñu njàmbur mais loolu mu jéggal ma aussi wax ci nekk bëgg a rafetal rek moo tax ma wax ci jërë ngeen jëf merci. Euh, question bu njëkk bi maanaam ndax defuñu bilan def leen bilan. bilan financier bi len deful parce que 2018 ba légui la te dama len dama len koy envoyer kenn ku ne ci sa courrier parce que 2018 du 2016 lañ koy def assemblée générale de 2019 lañ koy def assemblée générale. 2018 juin 2018 dañ koy def assemblée générale. donc du du du nekul 2016 te li tax defuñu assemblée générale taw dañoo waroon ko def mbass mi ñew indi ay problème ren ji sax dañoo forcer parce que ku ne xam ne mi jeexagut te ñepp ñi doon laaj def assemblée générale li nane nak huis clos huis clos amu ci. cest à ñun ñi fi nekkoon dañoo am yeneen liggéey bi présenter suñu équipe équipe boobu nag mbooloo mi ñi ci ëpp buñ ko rejeté woon heure bii kon ñi ngi wax ñeneen ñu fiy nekk waaye dañoo def élection te ci démocratie leen nekk man su ma neexoon ma tëju sama néeg def sama def sama bureau ñoo ne leen lii laa leen indil buñ mbooloo mi d'accordé mais man defuma loolu ay nit laa woo lu mat fukki nit ak juróom ñu toog waxtaan bu du woon téeméeri nit du sotti biñ toogee waxtaan ñu ne kat ñii ñoo war a seq liggéey bi ñu présenté leen ko parce que it man mi koy de ki nga xam ne moom moo nekk secrétaire général bu fi indiwoon beneen secrétaire général mën naa am du ma mën a def ak moom Abdou Fall mii def trésorier dem 11h ci guddi laa ko laa laa ko fekk këram yóbbu ko sëñ Cheikh Abdou Laat Ba euh, euh, Gaynde pour ñu Gaynde Fatma pour ñu waxtaan ak moom xëy na bu keneen la du ko man kon man ñi may àndal damaa jàpp ni ñooñu laa mën a àndal liggéey pour mu dox forcé wuñ ko kenn nag dañoo def élection majorité bi d'accord waaw dañoo ñoom dañoo dañoo am mbir yu ñu réere dafa dañoo association am société société moy def contrat pour am xaalis moy def contrat pour embaucher nit société bobu nak def assemblée générale association moy def assemblée générale association Kongom ci cotisation la koy locale ay dépense am ci loolu la koy génnee loolu mooy rapport bi nga xam dina ko publier ñëpp gis ko rapport bobu dafa négatif depuis 2019 de de moins 81 000 francs depuis 2019 amu fi kenn ku mëna taxaw ni jël na ñaar dërëm def ko ci association bi day leen def nag bu bu day màggal amee ñu laaj ay cotisation jënd diw ziyaare sëñ bi yóbbu ko mais ci li ci li dox association bi amu fi kenn ku fi mën a taxaw ni moom 2019 ba léegi jël na benn ñaar dërëm def ko ci caisse association bi ñi xam dañoo jëndoon carte membre ñi ngi ci list bi dépense yi def ñu ngi ci liste bi loolu nag yaakaar naa lu ko gën leer moom ñun mënuñu ko waaw association bi ñu ko créé en 2016 am yéene gerte Sénégal ñu koy jënd am yéene diwu Sénégal ñu koy jaay ah bi ñuy waxtaan ak le ministre Aly ci jamono yi moo nekkoon ministre de l' moom moo ñu conseil daan ñi association de banque du ko lebal xaalis association de mënut a jënd gerte da ngeen di ut benn coopérative wala benn société moom moo ñu conseillé loolu man sax coopérative laa xalaatoon gay yi nañu créé ab société bi ñu créé société bi ñu ni membre yi association bi ku ci bëgg a bokk da ngay indi 300000 parce que société anonyme la te 10 millions mooy capital bi. ñu wër 4 mois yoo xam ne dañuy wër membre yi di leen neexal pour ñu ñëw bokk 300000 nag xëy na am na jamono yoo xam ni amuñu ko am na ñoo xam ni gëmuñu suñu gis-gis te te ñi nga xamante ne nii joxe nañ ci képp ku joxe sa 300000 tey boo bëggoon a jaay loolu 3 millions mën na la mën na koo jaayal te ñi nga xam ne nag bokkuñu ci am nañ yéene ñun en tant que association waxtaan ak waa société boobu. ñoom ñu ubbi société bi ba képp ku bokk ci association bi bokk ci société bi waaye loolu nag waa société bi actionnaire yi démb rek le monsieur le Ka nga xam ne société bi la bokk mu ngi may woon naan ma société bi fu mu toll an seen dividende te moom pour mu bokk ci dañ ko wër wër wër moom parce que neexul gis kon la ñu def ba kooku bokk yaakaar naa def na euh, ñeneen ñi kon mënuñu amuñu information waaye koo xam ne nag ba ñu créé société bi yaa xeeti yow wala yaa nga yaa nga yaa nga yaa nga Baldo ji munoo nekkul loo xam ni da ngay ñëw rek joxe 300000 daal di bok Sonatel gee action yi bu fekk da 1 million am action mënul nekk société pour mu ubbe notaire mo ci liggéey pour pour ñu ubbi war koy dañ koy tass loolu la actionnaire yi ñooy ci waxtan wa li tak lu may association mom da fay nekkal ñep képp ku am machine segal am ka dëkk am carte d'identité man nga bok ci association société bi nak day wut xaalis day business mom moy signé contrat mom moy jaay diw mom moy jënd diw. loolu société bi nag moom ba mu amee prestation bi dañ maa man maa doon joxe gerte gi maa doon laaj ràkkal gi risques yi ci am maa ko jëloon tey bu fekkoon dañoo luubal lu dul jeex soxna maam xëy amu fi kenn ku muy topp man lay topp man maa jël risques yi mais loolu jeex na booba ba prestation ba jeexee ci la sama contrat ji association amu kenn ku ciy liggéey ñu lay fay par weer c'est bénévolat la loolu moom yaakaar naa euh, wax ko association du mënul sax defal nit contrat parce que ni amu ko benn bénévolat mooy liggéey ci association man Rasiaat liggéeyuma ci di fayeeku tey nag bu demoon ba société bi am contrat boo xamante prestation la ñoom waa société bi man boo ci société bi ci dirigeant yi ñoom bu leen neexee ñu ne Ousmane lii defal ñu ko parce que xëy directeur bi moom du mën a toog foofu di liggéey suba ak ngoon mu ne Ousmane lii gérer ma ko bu boobaa man dama ne may fay du ma liggéey lii indi xaalis ba pare naan leen damay liggéey ci Mali Faro parce que man mën naa nekk ci leneen damay waxaale ñoom da ngeen may fay li ñu may fay bu ñu ci d'accord ñun liggéey bu ñu ci d'accord ñoom ñu jël keneen mais amul leen leen obligé ñoom ñu liggéey ak man parce que directeur général société bi mi ngi fi président conseil d'administration ngi ci man man kii mooy administrateur bi man membre conseil d'administration kese laa fa te douze membres ñoo fa nekk actionnaire laa fa mais loolu moom yaakaar naa leer na ab société association bi nag moo fi nekkal ñëpp société bi nag day business te bañ koy créer waxoon nañ ñëpp ku ci bëgg bokk nga bokk te yi dañ faa balañ a dem faa dem membre association bi yëpp man en tant association bi dinaa xeex ba membre yëpp ku ci bëgg a bokk ñii ñu ubbil ñu seen ñu bunt ñu bokk ci société bi parce que dañoo bëgg li ñuy gañee nu gañee ndoo ko